na solo gars yi ñu ngi leen nuyu bu baax yaakaar naa ne tey jii ñu ngi fi ci arène nationale ñëw ci diggante Coly Faye 2 ak ki nga xam ne ni tey jii mooy Pape Ndoye bu Fass waaye dama fay fekk la grand champion boo xam ne réew mi ñu ngi doon waaj digganteem ak Mama Lamine muy double moteur boobu ba léegi kenn xamu ci lu nekk double ci loo ne waa maa ngi sant yàlla gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant ñaari waajur ñu ngi nuyu waa àdduna di nuy waa Sénégal di nuyu monde entier di nuyu ñëpp di la bëggee Fadam waaw di la xamal ne maa ngi si jàmm bu baax maa ngi sant bu baax maa ngi nii quoi. mais amateurs yi dañ la namm boobu ba léegi gisuñu la xamuñ ci loo nekk. di la xaar boobu ba léegi mënuñoo xam fan la Double Moteur nekk sa diggante ak Mama Lamine àdduna bépp di ko waxtaanee ba léegi xamuñ Double Moteur tere na kenn xamul am na da kenn xamul ci dara tey jii boo doon wax tey jii ñi nga ne dañ xaar ci wàllu làmb lan nga leen di wax. waaw li may wax gars yi rek lenn la mooy gars yi luñ mën namu benn namu naa leen lu ko raw ndax ñun làmb la ñu am làmb mooy suñu métier. di CNG te dañoo bàyyi lépp ndax làmb amuñu lu dul làmb mais nag jaam ak pexam yàlla ak dogalam nekkoon nañ si di ko waaj ndog-ndog dal ñu ñoo am blessure ñu ngi suñu ruq nag di faju bu ñu wéree rek incha allah rabi dinañ dugal guérison dañoo am blessure mais ñu ngi tane nag par rapport ak ni mu meloon bu njëkk mais bés bu ñu wéree dinañ dugal guérison incha allah rabi ñaan yàlla promoteur bi jàppal ñu dat ñu bëree. waaw mais Double Moteur lamb dala doon xaar sa diggante ak Mama Lamine ay tolof tolof dal la ci combat bi kenn xàmmeetul ana Double Moteur te jii boo amoon loo ciy wax ñi nga xam ne ni tey jii ñoy waa Rëbës sa diggante Double Moteur ci euh, sa diggante ak Mama Lamine ci yow la daggee wala ci mbër mi la daggee wala ci promoteur bi la nan la fu combat bi toll ci kan la ci Double Moteur la wala ci Mama Lamine la wala ci promoteur bi la waaw daanaka mooy li ma wax léegi rek combat bi suñ ñun la daggee parce que man maa am blessure dañ doon waaj combat ba jàppoon date waroon bëri le 5 février yàlla def ma am <coughs> bi ma amee blessure nag blessure boobu mënu ma ko bëri waale ñëpp gis nañ ko dafa naa sax interview wane ko ñëpp gis nañ ko moom laa nekk rek di ko faj yàlla mi ngi si def jàmm maa ngi tane par ndànk-ndànk ma demee euh, ci médecin CNG bi aussi tamit bi mu ko xoolee moom dafa ma bindal certificat médical yaa ngi dégg na ma naa toog ba wér parce que lii du lu ñuy sàgganee si loolu laa nekk loolu laay topp a maa ngi topp traitement yi tàng baa ngi tane ndànk-ndànk mais wéragul carrément ba nga moo xam daan daa ci war a mën a bëree mais maa gën a yàkkamti bu wér ndax bu wéree incha allah rabi yàkkamti naa mu wér ba ma dugal guérison bu bëree mais lu wérugul nag mënu koo cee bëre ndax man dama am ay mbokkam ñu topp sama ginnaaw comme ni ko waxee rek dama am ay kilifa am aussi itam ñoo xam ne dañ topp si sama ginnaaw te fi ma toll ci làmb bëri daanu bàyyi làmb sax mu wax gëral dégguma li nga wax duul ma tër am na ko bëral bëri mam malamin daanu ci bàyyi làmb la ko gëral keneen ku dul moom sax bëri daanu boo bàyyi làmb moo ko gëral parce que dama am secteur bu ma nekk ñu bëgg làmb à cause de man muy Dakar Plateau su ma jógee ñëppay jóg nii ma toog bëréew ma booy dañuy dajale seen wékk dajale seen xaaj di créer ay groupe whatsapp yoo xamante ni man damay mujj sax déplané wu yàlla xam na ko chaque jour di créer ay réunion def ay réunion ba suba rek moo ñu mujj dañu war a def benn réunion bu mag comprends nga kon loolu bu la ko yàlla dénk aussi tamit te booy defaloo leen dara du cent franc bu leen di jox du dara bu ma leen di jox ñu bëgg ma te yàlla rek tax kon ñooñu loon tey jii nii teg leen gàcce day ñëwee bàyyi bañ a bëree sax wallaahi azim moo ma ko gënal barke alxuraan mais mais mais tey jii nga jël Mama Lamine nga jël Mama Lamine bu fekkee ne Mama Lamine fee ngay wér dañuy jëlaat beneen combat tey jii boo paree da ngay xaar Mama Lamine wala da ngay jël jiwaat yow beneen combat bu ngeen paree ngeen doog a bëri non xam nga tey mooy li ma wax sànq rek xam nga tey jaam ak pexam yàlla am na loo xamante ne ci sport la bokk ci doomu aadama lay dal parce que boo xoolee ren combat yi fi demee noonu bari na tey Ama Baldé jël na fi avance Modou Lo ndog-ndog fekk ko ci dëgg loolu dëgg yaa ngi dëgg combat yi ba nii bëree guñu amaguñu dal pour bëree Gris Bordeaux Ama Baldé jël na fi avance Gris Bordeaux ndog-ndog dal ko lépp nekkul pro seen programme programme suñu borom la yàlla mooy programme ni lii dina la dal ala kulli aal mënoo si dara yaa ngi dëgg parce que tey mbër bu nekk tey yi nii boo sa boo jëlee avance da ngay bëree parce que ñun bëri la ñam bu ñu toogee bëriwuñu suñu pertement la comprends nga parce que tey am na yenn liggéey yu bëri mënutuñ ko liggéey làmb lañ concentré wu si lañ am kon suñu toogee bëriwuñu ñun suñu pertement la amuluñu benn ñu bëre mooy suñu avantage kon gënaluñ ñuy toog du ñu bëree bu ñu soyoon yàlla xam na ni barke alxuraanu karim chaque dimanche dañuy bëre parce que loolu mooy suñu loolu mooy suñu objectif ñi nga xam ne dañuy xëy si bureau yi am ay millions di dimbali seen ay wayjur di dimbali seen ay mbokk tey jii nii ñun foofu ko yaakaar kon heure bu ñu toogee bëriwuñu rek suñu perdement la ñu toog bëriwuñu gënaluñu mais dafa am loo xamante ni bu yow yàlla dogalee yow mënoo dara yàlla xam na ko loolu kese la. loolu am na solo fi may tàggoog yow dama laa dégg côté dama dégg ci côté élection yi. ñu dégg ñu naan double moteur daa bokk ci ñi nga xam ne ni tey jii ci ay nervi loolu moo dégg la ci. loolu nan nga ciy si télé sa der wala yow ci nga bokk loolu ñu laaj la nga leeral. waaw mooy li may wax sa jour rek ñun ay doomu Dakar Plateau lañu. yaa ngi dégg ñun suñu gox moo ñu ñor wax naa la ko sànq ci biir wax ñun dafa am boo yoo xamante ne day yéenee dañoo déggal bu ñu jógee ñu jóg di sonn si ñun déggal ñu di des ay coono si ñun te dafa luñ leen dara kon bu ñu sàmm dañ ñun sàmm booy moo ñu gënal fuuf ñu sàmm intérêt kenn ñun du ñu ay nervi ñun dañuy ñàkk dundee di liggéey mais du ñu ay nervi mais sunu gox ñun ñoo ko moom suñu koñ ñun ànduñu ak Macky Sall ànduñu ak Sonko ànduñu ak kenn ñun suñu gox la ñuy sant parce que tey ñun fi ñu dëkk Dakar Plateau dafa jege pale bi dafa jege 100 mètres bi tey ñii taal yëpp dëkkuñu foofu noonu ñi ñëw di taal dëkkuñu foofu noonu kenn du dem fekk se bundu gër nga koy taal te tey ñun suñu yaay ay mag lañ yaa ngi dégg suñu papa yi ay mag lañ tey saxaar ak la bu ñu ko taalee tey ji ñoom ñoo koy nooy te bu ñu feebaree ñun ñooy jël suñuy moyen di leen yóbbu hôpital ñun loolu la ñuy beneen bi si topp mooy ñun suñu kër fi sama yaay dëkk ay baraak la sama yaay ci ay baraak la yeewoo te yàlla tere yàlla tere bu gaa yi taalee foofu noonu dóor waaye la karamaseni kër gi tàkk man fan laa jëm aw ma fu ma dugal sama yaay amaguma kër bu ma ko dugal man loolu laay défendre sama sama intérêt quartier laay défendre mais man du ma nervi kenn ndax du 100 bu ñu ma jox laa la wax du si ñuy ànd ak Macky Sall amul ku ma si jox dërëmu Mali. comprendre nga baax bu ma waxee te tey dafa am jeunes yoo xamante ne tey jii nii bu ma volonté woo ànd ak ñoom génnee leen fii bu fi kenn taal kenn du fi taal loolu yàlla moo ko def loolu kese la mais gars yi dañu bàyyi yàq nit kuy dund te deewagul. mais du yoon du yoon champion bu mel ni yow ñu jël yenn yenn yenn gàkk yooyu di ko teg sa kaw der kon tey jii luy yoon war nga ba àdduna bépp dégg la ñu xam ne Double Moteur yoonam nekk ci loolu am na droit koñam kenn du fa ñëw di yàq kenn du fa ñëw di salteel alaaji Double Moteur loolu kese la loolu kese la man du ma nervi kenn lekkuma xaalisu Macky Sall lekkuma xaalisu Sonko lekkuma xaalisu benn politicien yaa ngi dégg man kenn du ma woo di ma wax si genre détails yi ñàkk fayda yooyu noonu parce que man sama jeunesse dama leen a bëgg bëgguma dara lu leen lor ndax man maay seul mbër bi nga xamante ne maa nekk Dakar Plateau sama waa koñ jeunesse bi wallaahi asim booy bu ci am problème laa la wax du ma xaar sa papa du ma xaar yaay man maay dabala ko samay moyenu bopp jàppale la kon tey du ma jël boo yooyu di leen sacrifier di leen dugal sa affaire nervi wala naka sul noonu mais ñun tey jii nii koñ lañ am am nañ droit sàmm suñu koñ parce tey koñ bi suñu ay yaay fi lañ dëkk suñu ay mag fi lañ dëkk suñu ay papa xaaruñu kenn. ñun jeunesse bi moo ñu intéressé ak population bi loolu mooy lu suñu intéressé moo tax lii nii dinaa si woote conférence de presse pour ñu gën a waxtaan. waaw pour ñu xam ne ñun du ay nervi ay liggéeykat lañ parce que boo xoolee tey yi ñaata doomu aadama lañ ci yàqal seen ay magasin ñaata nit lañ ci toj seen ay place lan moo ko fi jar mais loolu ñi koy def tey jii nii da ngay xam ne maanaam ñi koy def nii politique taxul ñu koy def dañu wax ne xam ne yoonam nekku si wallaahi azim ñu daal ci place am jël xam ne bi muy dajale ay moyen am pendant xamoo ñaataat la ko dajale so gis naa gis naa ci benn boy bu ñaan kër fuur ne xale bu ndaw la nekk ci di jaay ay téléphone démb laa ko seetaan bi damaa rus damaa ruus ndax jeune bu toll noonu investir ay millions am kenn xamul nan la def jaayante ba am alalam ñu yàqal ko noonu te ñu ko yàqal ay samba boo yoo xam kenn xamul fan lañ jugee mais gars yi tamit nañuy wax ci yooyu loolu moo jar a wax. yaa ngi dégg man sama koñ des baa xoolal keroog ful bi moo amee am na benn maire boo xamante ni yàlla xam na ne laa la wax gars ko bi ko mbooloo mi fekkee foofu noonu saak bi mu yoroon gars yi dañ ko këf maire bi fa la toog di yuuxu di jooy man maa mujj gi génnee sama 5000 francs may ko pour mu jël taxi ñibbi te pourtant maire boobu dafa ñëwoon ci 100000 bi pour seet si doomam 100000 bi la ñëwoon nag pour seet si doomam mais xoolal bi mbooloo mi ñëwee dañoo këf saakam laa la wax daaneel ko maire maa ko mujj yëgal yëgal sama 5000 francs may ko pour mu jël taxi ñibbi mais loolu kooku lan mooy yoonam ci ci affaire politique wala affaire ay yu ñu war a atte ay non métti loolu li muy xew yëpp suñu koñ lay xewee parce que ñun ñoo dëkk Dakar Plateau en face 100 mètres bi xam li la mais boo jugee pour xeex sa gox li gars di yëg wax ay ñii dañ leen jox xaalis ñii nangam ak ñun kenn joxuñu un franc